am rek quelque quelques remarques yu ma def rek ay constatation la amuñu problème pour voter loi voté nañ ko en commission à l'unanimité am na fi jaar fii ñuy voté comme ni nga wax suñu problème application rek la ak ñu assemblée nationale saa ñu voté ñu am conviction que li ñuy voté dañ ku mën a appliquer voilà le problème parce que lu fi def rek c'est pour le Sénégal ma jël ci innovation majeure yi nga xam ne moom la ñu introduire ci ci projet de loi bi bu ñuy wax garantir le respect des normes de sécurité de qualité et de pérennité des infrastructures routières et immobilières man boobu rek moom ci gën a intéressé monsieur le ministre problème bi ma am par rapport à nos tali bu ñu koy defar li ñu war a njëkk xalaat mooy le problème des eaux ruisselantes tali bu ñu defar tey bu nawet bi ñëwee mu yàqu loolu constat la ñun ñëpp lan moo tax loolu est-ce que yàkkam ci bi la wala parce que laboratoire bi ñu am parce que bu ñuy wax sur les normes de sécurité am na problème ba ak transporteurs yi transport nee na ñu tali yi moo am problème mais est-ce que dina jël temps nécessaire pour def étude des sols parce que tey bu le problème qui se pose à Diamniadio ñëpp xam nañ ne même bi ci aéroport bi le sol sol bi nekk Diamniadio bokkul ak sol bi nekk Cambérène so bi nekk dang te bu ñuy tabax tali dañuy dañuy gas rek teg te loolu laboratoire bi est-ce que étude bi ci war dëgg dëgg dëgg sur l'étude ak temps bi mu nécessité bi mu am ak naka nañuy defaree Sénégal ñu arrivé un jour dafa tali yoo xam ne dina mën a def ma sax dix ans cinq ans mais tali boo defar ren nawet bu ñëwee ñu defaraat ko donc ñu ngi yàq xaalis suma suñu problème mooy comment parce que boo defaree tali te amul ay ay ay ay ay possibilité def ay canalisation yoo xam ne bu bu nawet amee ndox lay dem tali boo defar Kër Massar wóor na day yàqu donc voilà le problème fondamental qu'on a par rapport à la qualité suñu bâtiment yi nag je ne sais pas si la laboratoire mun na contrôler parce que fii ni ñaa ngi tabax sans autorisation ni rien beneen bi pour aller vite les gares routières su ma waxee ci loi bi par rapport au bâtiment ma profité sur les sur le transport et la circulation defar nañu ay gares boo demee buntu Pikine boo demee Castor boo demee Thiaroye boo demee avenue Blaise Diagne d'accord non c'est pas c'est pas votre ministère est-ce qu'il y a possibilité entre yéen ak le ministère de l'intérieur le ministère des forces armées à travers la gendarmerie ngeen toog parce que te lu yàqu ci circulation bi on dit le ministère du transport mais bu dee dans le cadre de l'application des euh, la route des lois c'est le ministre de l'intérieur mais foofu war na mën a am benn benn benn inter benn travail interministériel bu def ba ñëpp xam nañu ne problème bi ñu am Sénégal mooy est-ce que nos forces de l'ordre am nañu moyen wu gérer le transport et la circulation bu ñu ko deful on fait comme dans tous les autres pays on crée une structure boo xam ne mooy gérer transport ak circulation parce que man homme de loi ne tali bi deful lu mu war a def citoyen lu ko dara ñu mun wax te ñëpp xam nañ ne actuellement on ne peut pas appliquer le code de la route ak li fi nekk actuellement tey li ma bëggoon mooy naa ko proposer président commission le le l' autopont de Keur Massar ban solution yi jël parce que autopont bi on l'a échoué ñëpp xam nañ ne baaxul léegi est ce que am na possibilité corriger l' pont de Keur Massar fi may terminer mooy les renouvellements des bus et autres monsieur le ministre gis nga chauffeurs yi nekk dem dikk ñoo nekk ci tata yi ñoo nekk fépp est-ce que xalaatuñu benn jour rek ñu jël ay ay ay yu rafet cravate sole ko suñu chauffeur u jaganjaay yi chauffeur u euh, tata yi euh, euh, apprenti yi ñu utal leen tenue parce que des fois yëre bi ngay sol mooy déterminer sa conscience et pourtant c'est de bons chauffeurs de bons apprentis mais xëy na accoutrement bi mooy indi benn esprit boo xam ne euh, de comportement il est temps que vraiment ñu utal leen ay tenues yoo xam ne yu rafet cravate lépp sol ko au moins parce que seen seen conduite dafa dafa seen tenue dafa